salaamaaleykum ma ngi nuyu wa Sénégal di nuyu ñëpp euh, di nuyu camarades yi RCD ci touru parti bi yëpp ma ngi nuyu wa Sénégal yëpp di leen yëgal ne que ñun wa RCD rassemblement pour la citoyenneté et le développement dañuy amal ay euh, le 24 et le 25 ci Vélingara activité yoyu nak moy lan mooy euh, congrès suñu congrès bu njëkk moy congrès ordinaire dañ ko fa amal nañu amal aussi congrès d'investiture pour suñu candidat investir suñu candidat Macky Sall pour l'élection 2019 février 2019 C'est le 24 le 25 aussi euh, dinañu fêter dinañu fêter suñu anniversaire parce que c'est la première année euh, premier anniversaire RCD Nous avons invité artiste boumak, mag bu Baba Mal, de l'orchestre Dandé Leñol Nous avons fait amal concert boumak, mag ci terrain bopp Vélingara

Onikadi, secrétaire général rassemblement pour la citoyenneté et le développement parti Kesso, parti Tawado et benno Bokéakar donc au week-end à partir de lundi euh, avons un congrès ordinaire congrès d'investiture du candidat makisal nous congrès parti et congrès pour euh, comme candidat à l'élection élection présidentielle du 24 février 2019 donc c'est euh, min weltina kadi bandiraɓe musidal ngal militant ji ɗi yimɓe sénégal par ce que hikka ɗo woni hitande hitande goo e anniversaire euh, rcd donc min waɗi invité dande leñol e baba mal vraiment artiste mawɗo donc euh, donc min waɗat concert welingara au terrain pop donc ɗum noon mi waɗi invité président de la république macky sall premier ministre makko boun abdallah dione mi waɗi invité aussi mimi touré envoyé spécial et ministre ji ministre de l'économie et des finances waɗi a invité euh, abdoulaye bibi balde ministre de la région amen région kolda donc il a invité tous les maires les élus kala benno Bok yakar ɗum onon foof a invité welingara bon salam alaikum je me présente man madame fall rcd donc nous vivons vraiment département dakar ak seen ñi nga xamante ni ñëpp ñu ngi Dakar Thiès Diourbel koo xamante ni rek pare nga pour dem Vélingara congrès bi bu ñu war a def vraiment pour l'investiture euh, de notre du président anniversaire u parti bi donc ku bëgg dem rek euh, ci permanence bi ñaari bus de 70 places ñu fa taxaw ku bëgg a dem rek mun nga woote ci 77 578 67 56 boo ñu contacter rek dañ la wax fi lay jëlee ñun ñëpp ñu dem si jàmm ñëw si jàmm ci invitation yi aussi artistes yu bëri ña nga fa ñoom Panais ña nga fa waaju baax ma nga fa hmm? am ñu benn waykatu Ndeye Dieng ñoom ñëpp ña nga fa vraiment ça c'est dañu bëgg mu nekk loo xamante ni day nekk une réussite totale parce que suñu président parti daf ñoo koo jaral te daf koo liggéey te dañoo bëgg woon président Macky Sall li muy doon mu liggéey boobu ba léegi nekkul si rajo yi di wax nekkul fenn wax mais travail de base bu am solo la def toujours Vélingara nag la koy ñëpp di xam ci dañ ko bëgg a gis te dinañ ko gis incha allah donc je vous remercie merci. président groupe euh, Prestige Thiès dañuy fêter fait un an le 72 heures lay 10 11 12 janvier le 12 janvier bi dañuy def euh, dîner de gala pour mag foofu Thiès promenade de Thiessois ñu woo ci un Balago Seck moom groupe Prestige Thiès nag euh, yow le choisir comme parrain loolu moom moo tax tey ñu déplacé wu jóge Thiès un équipe bi ci pour daal lay wax loolu wax la ni yow yaay suñu parrain ñu bëggoon xam naka nga gisee loolu. waaw loolu kontaan naa ci lool ma ngi leen di gërëm bu baax loolu fierté bu rëy lu ci man ma ngi leen di gërëm ah, lu si soit bu ngeen def ci man euh, ma ngi leen di féliciter aussi ci liggéey bu ngeen di def et aussi euh, di leen aussi soyez euh, souhaité par avance joyeux anniversaire aussi parce que lii mooy seen première année man aussi en tant que parrain de fa ñëw Inshallah, ànd ak sama délégation ak ñu madame Mbaye euh, en tout cas accepté naa avec beaucoup de fierté et beaucoup de joie aussi en tout cas dinaa fa nekk te xam naa bu boobaa moom karab moom du du yomb quoi à Thiès donc vraiment Inshallah, ñun ñëpp dinañ ñëw et je sais que anniversaire bi dina neex bu baax a baax donc euh, nous sommes ñun président nous remercier accepté nek suñu parrain di la rendez-vous le 12 Inch'Allah.